asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jox ku ne sa wàccuwaay tout d'abord ma présenté wu man la seen frère docteur El Hadj Ndiaye coordinateur Pastef commune bu Taïba Ndiaye lu jiit loolu na ñoo ngi sant bu baax a baax presse bi fi ñëw ñëpp ak waa waa RFM Tivaouane Dabakh TV ak aussi seen télé bu Taïba Ndiaye ñoo ngi leen di sant bu baax baax ci teewaay bi ñaanal aussi ñoo sant bu baax sunu mbokk yi patron yi mbokk frère yi jige ci yeneen dëkk yu bare bari ku melni ni grand Magay Guèye nekk Taïba Mbaye Pastef Taïba Mbaye ak suñu grand frère Malick Mbengue Pastef Taïba Ndiaye ak ñu ko andal ñëpp kon tay ji ñong fi ni a tay Taïba Ndiaye yeneen li waral li waral nak dajay moy andi ay leral wala teggi tuuma yo xamanteni dañ ko tek ci communauté rawatina le coordinateur kon dañ leral rek nii Pastef Taïba Ndiaye daanaka depuis mois de juin ba léegi mi ngi liggéey pour coalition bu dëgër am ci commune bi ndax dañoo gis ne commune Taïba Ndiaye ki fi nekk ki fi nekk maire ñu fi depuis 32 ans rek man année may gën a àdduna la nekk maire ba léegi mi ngi nekk maire kon loolu li ko fi jëlee mooy booloo nekk benn jëlee ko fi ci kaw loolu nag Pastef mi ngi doon liggéey depuis le mois de juin léegi nag bi loolu amee aussi ci diggante bi yu bari xew na fi lu mel ni coalition Yewwi Askan Wi mu juddu ci kaw loolu fekk nag Pastef mi ngi ciy liggéey loolu amee nag coalition bi juddu Pastef ak PUR ak parti bi ko àndal yëpp nekk en coalition. léegi nag bi loolu amee aussi ku wax coalition wax aussi investiture ndax naka ci tënk mën nañu wax ni li ëpp ci liggéey bi li ëpp ci échange électorale yi mooy affaire yi investiture yi biñ ci ëgsee nag daanaka amoon na ay coow yu ñu ci dégg ñenn si ñun suñu frère ñu dëkk Ndoomoor ak ñeent ci waa Càlle am na kàddu yu ñu yëkkati yooyu indi na ci ay leeral ci tënk rek li si jiitu mooy ñu wax ni tête de liste majoritaire maanaam ki jiite coalition bi kooku pur la jóge mooy suñu grand frère Pape Si Ndiaye moo ko xëccoo ak njàppaloo mujj Pape Si jël ko léegi kon nag liste maintenant proportionnel nag boobu lay xool kan moo koy jiite ci kaw loolu waa Pastef ak waa ASI jot na ak waa taxawu Sénégal ñoom ñoo waroon a xool kan mooy jiite la tête professionnelle ndax nag coow li mi coow li coow li li mi am lépp lépp côté boobu la nekkee maanaam lu njëkk dara amul coow mais bu nekk si investiture nag la coow am ci biir Pastef te nag jàpp na li sax bu lu mën a andi coow waaye comme ñenn ñi moom daanaka seen bopp seen bopp moo tax ñuy liggéey moo tax coow am loolu amee ñun suñu frère bopp koo xamante Pastef la nekk moo nekk président commission investiture ñu naa ko Mouhamed Lat Diop dëkk Ndomor moom moo nekk secrétaire général Pastef aussi nekk président commission investiture bi loolu amee ñu ni kan moo bëgg tëral ci professionnel mais ñun suñu bureau waxoon na ne ñun Pastef bëgg nañ ko waaye nag Pastef tànnagul kenn pour mu jiite ko ndax mën naa ko jiite kenn si mën na ko jiite ndax Pastef képp ko bokk bi loolu amee nag bureau bi tënk loolu léegi bi mu demee nag ba ci les jours jours si Mouhamed Laat Diop nekk président commission investiture moom mu ni danañu ko kan moo bëgg tëral ci professionnel moom mu yëkkati loxoom déjà loolu erreur la ndax en tant que président commission investiture yow loolu yaa ko war a jiite te loolu amul fenn maanaam position wala list c'est pour un parti mais pas pour une personne loolu erreur bu njëkk la erreur bi njëkk def mooy loolu te loolu day war ne aussi maanaam amul expérience politique ndax bu ko amoon du waxee noonu ci kaw loolu nag moom ci la xëccoo jiite tête liste proportionnelle waaye nag waa waa taxaw ña ko woon ak aussi waa asi jot na ñoom ñu ko bëgg pour leur parti loolu amee nag après biir Pastef yëg ko

Pastef moo ko waroon a moom te jigéen lay nekk mais nag ba tey Pastef seen biir amul consensus ndax maintes fois proposé naa ay réunion en présentiel pour régler loolu ñoom ñu bañ comme ñoom ay enseignants lañ nee na ñoom duñu fi nekk kon ñoom réunion virtuelle mu lay arrangé te man xamoon naa ne parce que man xamoon naa ne loolu mun régler problème bi ndax yu mel noonu c'est très important li ci gën mooy ngeen taxaw toog ñu ne kii kii lay jël kii kii lay jël mu leer nañ mais bu dee réunion en virtuel nit ñi souvent du am connexion ak connexion aussi déwul noonu ku nekk Matam lu ko nekk Ziguinchor ma bëgg wax ak moom ak Sénégal ni mel connexion bi jàppandiwul kon loolu moo taxoon amul consensus sur le choix de la personne bi loolu amee nag le deuxième des investitures Lat Diop ma nga ko woon moo nekk secrétaire général ak aussi ñenn ci waa Pastef Thialé bi loolu amee ñoom jël seen ndax man dama liggéeyoon jour boobu dama yéex a ñëw ay 21 heures laa ñëw ñoom ñoom nag ñu xool seen liste yu leen neex jël ku leen neex ku leen neex lañ jël dugal si biir daa koy proposé nag le comité électoral

len fu ngeen tol ci liggey bi nu ma wax kan len jël kan len jël nu ma wax ma ma léegi nag ma bàyyi leen comme ñoom nu ma wax ma bay len ñu jël si nak déposer ko jox ko le mandataire mais fofu ya un problème ndax commission investiture mom li ci moo wara tapé établir lepp jox le mandataire mais moom defuko mohammed la jël loolu defuko la jël li si yëpp la jël jox ko le mandataire kon mom liggéeyam defuko ko liggéeyam xamu sax bakoy def ndax ku xam ku xam investiture ni ni am importance doo jël ay liste yow imu leen nga koy dénk kenn rek te mën naa wax ne bu dul mën parce que kenn di ko fa nekkal liste yi bi ñu koy tàppee kenn nekk ko lu dul le mandataire loolu c'est grave loolu doo ko def mu ni moom day liggéey fii ñëppay liggéey mu ni moom daa waroon liggéey la lendemain moo tax demul tàppe liste yi man mais man mi maa woon liggéey goor Samb le mandataire aussi moom dafa moom dafa waroon liggéey kon moom liggéeyam kon moom laaj jóg liggéeyam def si dara ba pare nag ñëw fii nag di laa man ci wax ndax liggéey mom bu ko defon ñu mëna def kon ciowru am ndax mom lepsi mako maa ko war a jox la mandataire mu caché ñu yëp may wan lool nak dara dara dara amu ci kon mom bu ñëw fi di wax rek day réclamé mais xam mom moom liggéeyam defu ko té lool amna ci ay produit leer nañ ndax ay alliés ku melni Assane Serif Assane ak aussi malik Diop wax nañ ko ko dé ni ko yow li nga ko liggéey defoo ko xëy nag peut-être da nga ko sural mais xamna ni ñom ils l'ont remis à l'ordre wax nak li nga def defoo ko tey defoo ko ëllëg kon ciowli ciowli yi am lepp day day de ce répartition par les villages loolu amul amul comme comme comme comme comme comme mais amul fenn passif lan wax mais waxnu village au départ la commission a réparti les les les sièges

donc les positions c'est par parti mais pas par village kon xel nous aussi duñ ko nungu avons ñu attention la position numéro la position numéro 2 bi position am solo la a personne il fallait négocier d'abord.

mais yàlla dogal na man nit koo xamante ni laa dugguma ci parti Pastef pour xuloo wala pour xeex wala pour xëccoo dara dama si dugg ndax président sonk li mu ñuy woow ñun dañ ko bëgg dañ ko gëm loolu moo ñu indi ci Pastef du suñu intérêt personnel parce que El wax na ko coordonnateur bi bi ñuy xëccoo poste investiture bi ma yëkkatee Lat Diop yëkkati man dama ko bàyyeeg moom bi ñu demoo ci poste liste proportionnelle bi mu yëkkatee man dama ko bàyyeeg moom

ku muy liggéeyal ci loolu lay liggéey mosul jël benn décision aussi te waxtaanu ceeg nit ñi El lu muy def da koy teg si table bi nit ñi partagé ko ku nekk wax ci sa xalaat ñu jël ay décision ensemble mais musul jël benn décision boobu ne daf koy def de manière isolée donc daal pour xamal nit ñi nii ñun Pastef ñun ñu fi nekkoon ñoo fi nekk ba tey commission bi euh, commune bi fi mu nekkoon muy seen coordonnateur El Hadj moo fi nekk ba tey ñun moom la ñuy déglu ñi ngi ànd moom di liggéey ba keroog beneen xibaar jóge feneen ñëw tàbbi fii ci Pastef di ñu wax ni lii la wala lee mais au moment où je vous parle El Hadji Ndiaye docteur El Hadji Ndiaye moo nekk coordonnateur Pastef Taïba Ndiaye moom la ñuy déglu moom la ñuy àndal moom la ñuy liggéeyal wasalaam je vous remercie. Euh, ñi di gëstu di xool trajectoire am fi mu jaar ak li mu bëggal Sénégal loolu moo tax ak ni mu bëgg jubantee Sénégal moo tax ñu dugg ci. dugguñu ci lu dul principe bi nga xamante ni moom la Ousmane Sonko yor loolu kese moo ñu dugal ci Pastef dinaa wax nag ci euh, cas bi li nga xam ni moo tax moo waral waxtaan bi su ma ci ci côté El Hadj ndax El Hadj xam na ko bu baax li mu wax ni bi muy nekk coordinateur man ñooñu muy wax vraiment xëñ na samay frère lañu wala samay doom mais kii laa gën a xam parce que man ci élection yii passé maa fi nekk na représentant Pastef ci bureau numéro cinq kon xam nga ni kon xam naa bu baax mbir mi te kii ñuy wax nii de man li ma xam ci moom laay wax li ma xam ci moom ndax moom laa gën a xam vraiment estimant ñeneen ñi ñeneen ñi duma leen waxal dara ndax xaw ma leen waaw mais kii moom xam naa ko bu baax.